Euh, di leen sant baax di leen gërëm si teewaay bi tey euh, tey nag euh, dañoo événement dafa tombé parce que comme ñu wax dig bord la ñun comme na lu ko xamee rek la mouvement ànd sokk Sénégal dañu mouvement boo xam ne maanaam ñun on est beaucoup si le social et puis ñun suñu yitt yëpp mooy gën a jege askan bi si loolu tey ñu ngi am tey vraiment kontaan tey di recevoir ñi nga xam ne ñoom ñooy académie Amath Diallo comme noonu nga xamee Amad Diallo moo nekk à ma gauche ñëpp xam nañ ko si wàllu football international euh, yóbbu na tey euh, boo xoolee football tey si wàllu Thiès tey fenn xam ne kenn xamul macha allah fu mu toll di nuyu tey tout son staff ñu ko ñu mu àndal yëpp vraiment je tiens beaucoup à vous remercier. si lu tamit euh, dafa tombé tamit maa ngi tamit nuyu ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy comité Jakarta yi dégg naa wax nañ ma léegi léegi ni fi teewu ñoo nañ nga xam ne tamit maanaam tey ñoom ñoo taxoon tey bés bi tey ma dajale leen mooy les cochers mooy dawalkatu voiture yi parce que ñoom seen bopp ñoom ma bëggal seen bopp gis ma ma doy leen ñu ma dañu bëgg ñëw ànd ak man liggéey ak man pour lan pour le développement de la ville de Thiès. su loolu vraiment di remercier yi ñu fi teewoo euh, comme noonu nga xam ne rek ñun en tête on est des techniciens pas déjà très pragmatiques di fi nekk di théoriser parce que toujours dañoo xam ne rek wax moom amul benn njëriñ lu gën am solo mooy jëf bi. dañoo léegi balaa ñu libéré ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo teew mooy l' bi dañu diggoon tey ay ay ay promesse je pense que la promesse a été faite mooy leen dañu bëgg tey jox leen tey ay matériel mooy ay crampons ay jeu ay kii bon am na sa ay jeu de maillot a ñëw mais dañu xam ne yaa problème de de kii moo tax ñëwul te lii nga xam ne tey moo nekk si taal bi tey ñoom nañu def fas yéene tey jàppale leen pour wane ñoom tamit si wàllu ñun ñi anta mouvement And Suxali Sénégal yëpp ak sama délégation mon staff mon bureau yëpp ak tout le mouvement ni ngi seen ginnaaw di soutenir ñun moom comme noonu ko xamee dañuy faral toujours di wax rek mooy ñun si njiite mooy lan mooy jàppale askan bi ñu fii pour suñu poste nekkuñu fii di def leen ñu xam ne maanaam li may faral di wax mooy politique politicienne dañ ñëw vraiment ci contribuer pour le développement de la ville contribuer si si wàllu gox bu ñu waxee soxli mooy mooy lan mooy émerger bon si loolu nag euh, jarul xam naa comme noonu nga xamee ñu toujours aussi on une vision ay politique mooy lan ñëpp xam ni ko ñu on est toujours les alliés du président Macky moom la ñuy ànd tey moom la ànd suba ko jàppale si wàllu quoi si wàllu l' surtout dans la commune de Thiès dans la région de Thiès de sorte vraiment di leen sant baax di leen gërëm euh, di sant ñi nga xam ne maanaam ñoo fi teew tey mooy doyen Ahmed Diallo vraiment euh, mon oncle euh, laa mën a wax di ko sant bu baax di leen gërëm jox lii c'est un début justement rek bu ñu war a def tey mais dinañ continuer aussi à vous accompagner li may faral di wax rek mooy ñun moom on est dans tous les volets mais bu ñuy paree fii aussi am na ay mutuelle de santé ay carnet de xam ne war nañ ko jox lu raatee lu mus a ànd Thiès mooy lan ñi les cocher ñëpp xam nañ tey borom wasiir yi ay jàmbaar nañu ñoom bu ñu xëyee yëpp ngir njaboot sàcc ñu xëy yëpp dañuy daan seen doola ñu bëgg aussi tam accompagner leen si wàllu si wàllu CMU bi donc vraiment maa ngi sant bu baax di leen gërëm pour être bref jërë ngeen jëf di nuyu les de Corse di nuyu représentants Jakarta yi di nuyu tous qui sont ici di leen gërëm leen sant jiital nuyoo bi nag Habib Niang di ko remercier bu baax comme ni mu ko waxee nag il est bon de se présenter quand parce que man je suis un ancien international sénégalais de football Thiès gi yëpp maa fi jëkk joué ñaari coupe d' Afrique des nations jaxaaw gi yëpp maa fi jëkk nekk professionnel de football formé samay doom ba ñu joué coupe du monde ba nekk professionnel aussi ay Moustapha Diallo donc nous avons créé l' académie Amath Diallo Amath Diallo tout le monde le connaît ici à Thiès Amath Diallo c' est un ancien instituteur un ancien de de am na tur yoo xam ni waruñu dee Quand je dis que je suis un ancien international, parce que l'international est un statut. N'importe qui n'est pas international. C'est un statut. Parce que ñu wax ni drapeau national président lañ koy tëggal ak le le militaire qui défend le drapeau national ak l'international qui défend les couleurs nationales. nous avons défendu le couleurs nationales pendant deux coupes d'Afrique am ci ay bëñu dem ak lépp ak tout mais c'était le peuple sénégalais parce qu képp kuy wax équipe nationale day fekk nga sol maillot bi. ñun xam nañu ce que c'est nous avons représenté le peuple sénégalais partout en Afrique nous avons été les premiers professionnels fii au niveau de Thiès en 1968 donc pour en revenir une académie c'est pas une école de football une académie kenn du xëy suba créer école kii directeur d'école la école kenn du xëy suba rek ne am naa école dafa am këyit yu mu laaj këyitu association dem ministère ba état bi reconnaître ko jox la arrêté jox la maintenant un nooy nooy liggéey donc ci loolu la ñu nekk nous sommes comme jàmbaar nous sommes comme génération foot tollaguñ ci ñoom nag pour ñu toll fa ñu mel ñu ñoom Habib Niang yi ñoo ñu mën a dimbale ñu toll foofu te mu ngi koy def waa jaxaaw ñoo ñu war a dimbale ñu toll foofu ñu war ko def donc le sport dafa nekk loo xam ne aujourd'hui ce n'est plus un jeu c'est une industrie fu nit di gagner cinquante millions par semaine soixante-dix millions par semaine kooku dootul foofu ce n'est plus un jeu man ba may nekk professionnel de gagné quatre cent cinquante mille francs CFA en tant que enseignant ma doon gagné trente deux mille ma dem en France je gagné quatre cinq cent mille francs par mois c' était beaucoup d' argent léegi c' est soixante dix millions par semaine. àjjuma bu jot donc dootul fo c' est pourquoi nous avons dit pour participer au développement de ce pays pour participer au développement de notre quartier il fallait mettre quelque chose que bu ëllëgee ñoom tam ñu am lu ñu jàppalee heureusement nous sommes tombés sur quelqu'un boo xam ne bii vraiment ñun on la remercie vivement parce que c' est le premier bu taxaw ñëw dimbale académie bi l' académie existe depuis trois ans la ñu am suñu récépissé ak suñu cahier de charge état beeg lépp mais lépp ñun ñoo ko doon doxal suñu bopp waaw ñooy internet suñuy booy añ reer ndékki di fay fi ñuy dëkk ñun rek kenn musu ñoo dimbale c' la première personne qui est venue ñëw donc mu ngi def lu may ñaanal ko waaw man nag comme vous dit man danaa politique en même temps parce que quand j'ai fait de la politique sur le plan sportif laa koy defee parce que j'ai dit que ñun tamit dañu war a nekk dans toutes les instances donc quelqu'un qui aide Jaxaaw qui fait tout pour ce quartier mais buy politique dañ ko war a jàppale dañu ko war a jàppale man je dirige l'Alliance pour la défense du sport et des sportifs c'est dans onze régions c'est tous les sportifs toutes disciplines confondues maa ko géré ñooñu ñëpp nag bu dee Thiès la bu dee kii ils vont aller avec Habib parce que c'est la DSS l'Alliance pour la défense du sport et des sportifs 2017 on voulait aller à l'Assemblée nationale parce qu'on a dit qu'il y a aucun sportif à l'Assemblée nationale et pourtant le sport est un facteur de développement le sport dafay développer waaw de par les mentalités parce que la reconversion des mentalités passe par le sport waaw sport rek ma a defaraat nit donc ñun dañu am njariñ ci dëkk bi pour cela pour ma gàttal ko rek moo ñun à travers suma mouvement ADSSS nous allons soutenir Habib Niang parce que c'est le premier qui est venu nous aider en tant sport donc Habib je te remercie l'ADSS te remercie ah l' académie Amar Diallo te remercie ñi fi toog ñëpp nekk ak man nekk sama on a notre directeur technique on a notre secrétaire général qui est là on a tout le monde nous sommes très organisés ñoom ñëpp ñu ngi fi toog il te remercie à travers ma voix yéen ñi fi toog nag xam ne ñoo fa dites-vous que nous sommes ensemble man je jaay naa fi boutique sax à Diakhao j'ai dit quels sont les maux dont souffre le quartier pour ñu faj ko man def naa ko 2002 ubbi naa fi boutique fii te pourtant je suis un inspecteur d' assurance je suis un expert en enquête et recherche je suis un ancien enseignant mais jaay naa boutique waaw. mais donc je je crois que ñun ñëpp bu ñu jógee au niveau de notre quartier war nañu mën a am dara mais bu ñu gisee ne ku ñuy jàppale ci loolu mais nañ ko jàppale. comme bi may tàmbali encore loolu laa xoon sànq euh, ñi nga xam ne ñooñu taxoon jóg ba yàlla boole si leneen euh, mooy ñi nga xam ne ñoo suñu mbokk yi ñoo suñu frères yi. mooy dawalkatu wauteur yi comme noonu ko xamee rek ñoom am nañu importance bu mag biir dëkk bi leen tuddee les cochers tey ñoom boo xoolee macha allah ay kilifa nañu ay responsable lañu def lii lu xam ne biir biir solo bi bi dëkk bi tey biir Thiès hmm. biir Thiès yëpp te ñëpp xam nañ leen tey boo bëggee am information sax boo jaaree si ñoom nga am ko man de ñoom ñoom ma bëggal seen bopp euh, man sam bopp maa ñoom man maa leen seeti bi ma gisee macha allah nu ñu organisé wu doon association boo xam ne toll na presque lu mot ay deux cent quelques membres leen seete vraiment ma ne ñii ñu jar jàppal nañu euh, li may faral di wax rek ñun pour ci développement nañu def ñun suñu mouvement dañ ko yaatal te mouvement boo xam ne ñun rek suñu bopp képp ku si mu dugg da si dugg pour lan pour njëriñu dëkk bi njëriñu réew bi mën tax a jóg si loolu yàlla def nag ñoom seen bopp euh, mu Jibi Sarr sa président Ndongo Diop ak Oumar Diop ñun ñooy représentant yëpp maa ngi leen sant bu baax ak seen bi nga xam ne maanaam teewe ko ñoom de yàgg nañu sàkku dañ ma soxlee bëgg ma gis ma ubbi leen sama ñoom seen bopp ñoom ñoo dem ba ma doy leen ñun de fas yéene yow ànd ak yow ñun na aussi bu la yëgee da nga ko si loolu tamit man tax ma jël leen boole leen di baal ma si sama njaboot ma nekkal leen seen représentant fii noonu nga xamee xam nga tey ñëpp dañuy daan seen doole parce que gis naa ne tamit euh, mouvement bu association bu am doole la macha allah biir Thiès tey ñoom tey bu ñu xëyee génn bi dëkk bi tey wax parce que la preuve mooy président bi ñëw fi campagne bi gis ngeen ñu mobiliser seen ay fas yi teelu président public bi musul am biir Thiès donc ñoom gàcc gaalaama si loolu tamit ma amoon ay engagement yoo xam ne jël ma koon sax ma ne ñii ñu jar accompagner war naa leen accompagner mooy jàppale leen si wàllu seen wàllu dundin am na sax li mu leen jot a loolu boo incha allah bi yàggatul sax mu ngi si loxo ñi nga xam ñoo war a signé kayit bi ma jox leen ko parce que ñii dama bëgg amal seen siège bopp. parce que ñoom boo xoolee yàlla def na bu ma jumul chaque weer dañu tase ñoom ñëpp ils sont plus de ëpp na sax li ma gis foofu macha allah mbooloo dañuy tase laan ku ne di cotiser ku am soxla nga jël ko foofu ku feebar foofu nañ ko jëlee loolu nag ma ne loolu dama bëgg nag mu deñ si loolu laa décidé ne jàppale leen fi may commencé mooy. jàpp leen d' abord ute leen ay lan ay carte di CMU carte mutuelle de santé nga xam ne képp ku xam ne da nga bëgg a faju ji doo fay dërëm di nga faju ji mooy yoon comme ni ñu nekkee fonctionnaire nga xam ne tey fonctionnaire tey bu bëggee faju tey boo demee tey fii boo war a fay te am nga moyen mun nga fay 10 000 francs non ni noonu am nga invitation 500 francs ngay fay ñoom comme ni ñu nekkee ñun tam ñoom laa bëgg nekkee fonctionnaire moo tax ma fas jox leen ay carte mutuelle de santé carte yi ma leen di jox jël na en charge lu mot 60 personnes juróom benn fukk laa jël lii rek début rek la ñu jox leen ko at laa leen jël en charge kii maa ngi remercier aussi de passage kii nga xam ne maanaam moom mi président mutuelle bi vraiment je te remercie grand de passage euh, vraiment bi mu ko ko waxee barki démb automatiquement daf ma defal la situation yëpp indil ma kart yaa ngi nii ba ma ne ko bugg naa sax balaa ñuy dem soit ngeen tëju fii ngeen rempli yëpp ngeen signé seen photo yëpp yaakaar naa ne bu ñu mën nañ même bu ñu bëggee même à partir de nañu faju yaakaar naa bu ma jëwul mu ngeen faju et puis bu am doole la macha allah xam nañ ko mu ngeen dem hôpital régional mu ngeen dem Gent mu ngeen dem Coona mu ngeen dem Japon Escale foo leen bëgg a faju di ngeen faju même si wàllu tey pharmacie yi si boppam tey bu leen bind garab bu nekkee yaakaar naa ñaari junni boo leen ñaar ngeen di fay ngeen di fay loolu dimbal la tey bu sa jabar wasine tey boo demee tey loo war a fay du egg sax junni yëpp nag ngir lan yombal bi yëpp ki ñu war a gën a sant mooy ginnaaw yàlla mooy le président Macky Sall moo ko fii ci. école bi résumé parlé moom la ñu de passage. di ko remercier parce que bu dul woon lum lii dina métti si ñun. mënuma toog ji bi nekk sama frère nekk sama ñit am porte ordonnance ñaari junni ma koy seetaan parfois comme noo xam ne parfois fausse bët. lii nga xam ne bu nga ko amee tey Habib Niang bu fi nekkul sax lii si boppam mun nga ko jël dem faju ji mm-hmm. bu doon ordonnance bi ñaari junni boo demee tey boo xoolee ñaari téeméer wala ñetti téeméer ngay fay bu wax leen rek affaire yaa ngi nii yan laa koy jébbal mm-hmm. continuer di accompagner mm-hmm. wala que man gor laa benn laay jàpp incha allah fépp fu mu fu ñu mun a def naa ànd ak yéen parce que yéen tamit bi dëkk bi am ngeen fi carte xam ngeen lu dox lu doxul tey sax bu nekkoon tey euh, euh, sa kii sax coché am na nañu assurance sax man maa leen jël en charge mais yëpp la yaa de règlement moo tax ma accompagner leen ku si nekk di nga yore benn carte carte bu si nekk di nga jël sa njaboot ak sa doom jël na en charge ñetti ñit ngi nii di ko jël jël la ko en ku xam ne ku feebar rek yéen dellu sax ngeen di laal seen kees wutuma ngeen laal seen kees incha allah loolu moo tax tey ma fas tey woo leen ñoom sax bi ma leen ko wax yëguñu ko sax. man maa ñëw fas yéene ko sama biir xol te bëgg sama biir xol tey defal leen ko parce que noonu ko xamee ñun ànd saxul Sénégal moom dañu bëgg képp fi nekk rek maanaam gis sa bopp c'est normal que ñu accompagner leen ñun xeebuñu kenn ñun ñëpp benn nañu li ñu tax a jóg mooy rek mooy développement liggéey suñu gox gox liggéey si gox mooy lan mooy yëg-yëg mu am solo nit bu amee yëg-yëg gis ko bu amee naqar bu amee bànneex nga ak moom ñun loolu moo ñu tax a jóg leneen tax ñu jóg vraiment bu baax di leen sant di leen gërëm di sant de avant may jox peut être euh, kii nga xam ne maanaam moom mooy président bi Djibi Sarr damay jox kii nga xam ne maanaam moom mooy responsable teel de santé bi mu am benn carte bu mu mu sànni si rek balaa ma jox le président des cochers ah. cérémonie bu mel nii c'est pas première fois ma teewee ko ci Habib daaw waa Nasru defar naa leen 300 carnet ba ñoom seen fajo juin lay jeex don bu defee lii tey ji aussi du doon lu ma bett. muy nit ko xam ne kii ci développement kese lay dox parce que nit ki nga xam ne da ko wutal carnet de santé jox nga ko assurance carnet bi boo ko xasee yor poste santé ngend kër sër dixième hôpital régional foofa taxaw ñu faj la te vingt pour cent ngay fay ticket bu dee téeméer juróom-benn dërëm ngay joxe bu na bi ne ordonnance ci euh, poste santé bi amu fa nga dem pharmacie ñu jox la bon nga dem jëli sa garab foofa sunu pharmacie nag mooy pharmacie baax yaay bi bi donc moi je pense que ni ah Habib day nee nañu doomu ñaay de ah, doo ko ñaanal lan rëy loo koy ñaanal Habib bi de bu guddee fan fii yàgg fi ñun ñëpp daañu daañu daañu daañu tekki ma bëgg nag ñu jàppale ko te yàlla tax parce que aussi lii dafay loo ne yombul nit a ngi xaalisam ci poosam di maye 1000 francs di maye 2000 lii lii mooy mooy maye nag nit koo may 3500 mu faju ci at ak njabootam loolay maye ma bëgg vraiment ñu jàppale Habib lépp loo xam ne bëgg na ko ñu ànd ceeg moom jàppale ko parce que ñu ngi jàppale cérémonie yu mel nii nag tewee naa ko ba tàyyi 300 carnet 600 carnet kii moo koy def mag Baye Sall chaque fois ñu kii moo la àndal chaque jour ma bëgg nag ah ñun waa zone nord ñun de am nañu Habib nañ ko ñaanal jàppale ko mu yegg fi mu jëm mi ngi def fast track bi président wax moom moo ko njëkkee résultat baa ngi nii wasalaamaaleykum wa rahmatulah. di la siyaar bu baax di ñaanal suñ bopp di ko ñaan ci réew mi di ko ñaanal abibu yi ndaxte nekk nit koo xamante ne ku fonk kàddoom moom moo ñu seet kon ni mu ko waxee fekk ñu fi ñu nekkoon du ko neexoon mën na xool ji ñeneen mu nit ñi ay borom wutit kese lañ mais ak oyofam ak dignitéem ci lañu seet ci ñëw fekk ñu suñ fi ñu toog doon waxtaan ñu daal di tënk ak moom ci ay kàddu yoo xam mu nekk ay kàddu gor. te boobaak léegi wàccagu ci benn yoon te lu mu diggee nit ku nekk da koy daal di def ñu man koo seede mu nekk nit koo xamante ni mu nekk nit koo xamante ni du fekk woon mboolem ñu nekk ci réew mi ñëpp dañoo mel ni ñoom kon dëkk bi weesu na fii mu nekk di boole ay ndaw di boole ay mag ci dooley boppam di leen dimbali te yàlla suñu borom képp tax loolu yombul ndax alal dafa neex ci xol te moom alalam bu ñëpp la koy bokkal jaam ñëpp kon lii moom du ñu ko dee defaral lii président la ko defaral àdduna nga ko defaral di la ci ñaan ndax lu ñuy ñaan nag maam Cheikh Ibrahima Fall lañ koy ñaan dañ dañ la ciy dogul balaa déwén di nga am lu koy sa njot musu ñoo ñaan daray Cheikh Fall te joxewuñu ko te ñoo ngi jëm ci weeru koor yi ñu nag ñu nekk fas yéenee togg ndog yi Touba dinañ la ko dogul dinañ la ko ñaan sa siège bi balaa déwén di nga yokk ci tous les côtés ci doolay maam Cheikh Fall bu lan lan li ndaween nga dalal sa xel mboolem conseil yi biir Thiès wóotiir sareetu mbaam ñëpp yow la ñu àndal ndax leader yi bari woon nañ fi gisuñu kenn yow yaa wàcc sur le terrain ñëw ci ñun yow yaay suñuy bët duñ xooluñu keneen ku dul yow hmm. ku ñëw soxlawuñu ko ñun doy nañ doy nga ñu kon ni ñu ni ñuy sukkee suñ kën sër sëriñ ni ko aslamtu si yow noon nga ñu doyee ci saayir ci lool doy nga ñu xooluñu beneen parti xooluñu keneen président Macky Sall sax du ñëwoon fi dañ naan ko bala ngaa ñëw fi ñun demal ci Habib pour firndeel la li nekk fi ñun ubbil nañu la suñuy bunt ci tous les côtés ñun ñoo ngi nii xooluñu kenn xooluñu keneen Cees nag yaatu na leader yi bari bari nañ fi trop mais suñ xol yaa ci nekk waxoon naa la ko keroog seede bi moom lañ lay waat ci biir mbooloo bi jox nañ la suñu lépp te loolu noonu doy na sëkk misaal te li ci kanam raw li bët allah foo ñu soxla muy guddi muy bëccëg bul hésité ñoo ngi ci yow tous les côtés ndaxte du ñu ànd ak nit nag duñ ko àndee pour suñu intérêt bopp mhm. dañu ànd ak yow te yàlla suñu borom képp tax ñu cay fekk fekk ñu ca mhm. lii nii bi ñu ànd ak yow xalaatuñu ko woon mu nekk bonus boo xamante ñun tàmbali nañ ci mhm. li ci kanam nag moo dàq sama gars yi ngeen ñaanal ko moom jàmm ak salaam te li nag moom ko nag ci doolay maam Seera Fall ni mu ko bëggee nag jaa ngeen jëf gars yi lii rek seet na xool voilà comme euh, ñu ngi sant encore ñëpp tamit euh, tey moom programme xaw na changé lool ñu ngi amaat encore euh, mbégte tamit di recevoir ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy conducteur de Jakarta yi à la zone nord mooy jaxaaw euh, vraiment di tey fii ki nga xam ne moo leen représenté mu ngi fi toog ak euh, ànd ak délégation bu takku mooy Mbaye Thiam mooy président des conducteurs de Jakarta jaxaaw bon vraiment di ñëw di di ziar ba port et puis aussi tamit di ñëw pour sàmm teen xam nañu jafe-jafe yi nga xam ne am ngeen ko aussi conducteurs yi parce que li may faral li ma waxoon sànq rek euh, borom saret euh, yi tamit côté yi c'est la même chose que yi ñun ñëpp ay responsable lañu ay boroom jaboot nañu ay borom kër nañu ku si nekk si yow am na loo bàyyi si loo ko ñoom tamit ñu jar a jàppale nañ li ma faral di wax toujours mu mënu def yëpp il faut mu am ay bonne volonté yu xam ne yu taxaw des xam ne vraiment des acteurs développement ànd ak ñoom jàppale leen man maa ngi fàttalu sax bi may doog ràdd sama rattale politique fii en 2017 euh, li ma njëkk def mooy euh, offrir naa leen lu mot plus de cent kits pour lan bu ñu amee ay ay yu ndaw mun nañ les premiers soins defoon naa ko fii nii bi may def sama rentrée pour en 2017 euh, et puis maa ngi sant ki nga xam ne a moom moo tax jaww bi bëggoon naa leen rencontre bu yàgg mooy madame madame Ndiaye soxna Nabou ay sant baa ngi la gërëm bi mu ko automatiquement ma ne nañ ñëw ma recevoir leen pour wax lekk rek man dama ñëw aussi décidé na fal euh, sax suñu ay yéen benn parti benn coloré pour xool nan laa leen di jàppale tamit parce que am na benn projet bu xam ne ñu ngi koy mijoté bi Thiès actuellement sax ni ngi si finalisation yi et bien lu xawoon perte bi tuuti mooy changement bi amoon amoo au niveau des ministères des transports parce que man li may wax mooy fii nga xam ne man laa dëkk dootuma seetaanti tamit sama conducteur yi jakartamaa yi di am ay dama décidé ànd ànd ànd ak yéen bu beeg état macha allah président bi def effort bu mag di jàppale mais nag li may faral di wax rek état mu def yëpp man fas yéene naa tamit ak yéen indi fii ay ni ñu tuddee ay genre taxi jakarta taxi jakarta yoo xam ne am na ñu photo yaa ngi nii mun naa leen ko woon jot naa si waxtaan ak maison mère bi xam ne waxtaan nañu ba pare mu ne fas yéene na ko indi fii. mais comme noo xamee rek bu ñëwee automatiquement rek dana ko mën utiliser il faut di def ay procédures yi temps si procédure nañ nekk si loolu sax boo xoolee heureusement ma yenn sax xam naa ne ku si nekk seen ñi am na permis de conduire parce que loolu pour daw ko il faut nga am permis parce que oto moo oto yu ndaw yi la camionnette yu ndaw la xam naa oto la xam ne mën na jël ba 6 ba 7 personnes et puis am na sécurisé donc oto yooyu moom laa fas yéene balaa ñuy jeex année indi ko biir Thiès surtout fii nga xam ne maanaam foofu laa féetee pour jàppale ko ñi nga xam ne maanaam moom mooy sama dëkkandoo yi sama mbokk yi mooy yéen bu may sama mbokk yi mu yéen lay waxal waaw yéen lay waxal donc euh, jàppale leen si loolu loolu laa fas yéene def insha allah pour wax ko tamit tamit nii nga xam ne aussi noonu def noonu laa def euh, cadre de santé yi naa fas yéene aussi tamit nu mu gën a niw xam naa ne peut être xaw na xat tuuti mais naa leen jàppale naa leen jàpp aussi yéen ngeen jot si carnet yi je ferai tout ak semaine prochaine mu recevoir mu recevoir leen mun a def ak yéen xool ñaata carnet laa leen a jox yéen tamit jàppale leen parce que jaaduwul tamit comme ni ko tuddee rek toujours ni ne boo demee tey à l'hôpital régional am na benn euh, chambre bu xam ne ñu tuddee chambre jakatamaan yi c'est exact yàlla yàlla musal parce que ñi fi nekk ñëpp ay borom kër responsable lañu bañ a sàcc bañ a agressé moo tax et ñoom sax boo xoolee man j'ai vu des gens xam ne am na seen licence mm-hmm. la pour lan rek def ko rek pour lan moo tax man tamit ànd ak yéen fas naa yéen incha allah ren jàppale leen ubbi naa leen sama bunt heure boo leen ma soxlee mu ngeen ñëw ni liggéey mais li mun a mën a garanti mooy euh, semaine prochaine seen naa fexe tuuti tamit comme nu ma joxee ay carnet de santé man tamit ma fexe jox leen si yéen. waaw moto yi nag bu ñu ñëwee bon ay oto laa mën a wax ci ay voitures la ñetti voitures xam ne c'est des voitures de de six places lay jël oto la am boo te ci ngéej mun fa am gaay Kër Massar Apaga yooyu laa bëgg indi fii pour au moins innover changer un peu pour jàppale sama waa gox sama dëkkandoo sama askan. waaw vraiment sant leen bu baax mm-hmm. maa ngi toog leen déglu sa doléance en même temps ngir ñu ànd ñëw ñu liggéey ngir lan pour soqali suñu gox jërë ngeen jëf. ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu kilifa gi di Habib Niang. di kontaan bu baax ci daje bi nga xam ne daje nañ ko am moom euh, di kontaan bu baax ci daje bi nga xam ne daje nañ ko moom euh, di sant madame Ndiaye tamit bu baax moom mi nga xamante nii mun naa ne moo facilité suñu dajee ak Habib Niang euh, di rafetlu nag kàddu yi nga xamante ni moom la wax jëmale ko ci ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy dawal Jakarta yi dafa mel ne dafa xam suñu gént avant ñuy ñëw parce que bi ma ko dégloo ci biir waxam c'est comme si ñun suñu cahier de doléance moom xam na ko ba pare kon donc dañ koy wax ne ko comme ni mu ñu ibbilee portam ñun tamit pare nañ pour ànd ak moom liggéey ak moom ndax euh, li ñuy wax euh, tungu ne du teew ñuy nataal ku gis bi ñu yegsee ci saal bi ñi nga xamante ni loolu la def ci côté sport ak euh, ni mu dimbalee suñu mbokk ñi nga xamante ñoo yor conseil kon loolu dal na xel mm. di la wax ne la monsieur Niang ñun ñu ginnaaw ñu ngi ànd ak yow di wax ne nit dangay dem ci nit avant dara di xew ndax su dara xewee su boobaa nga mën ko cee bénéficié wu. di la wax ne la ñun ñu ngi fii à côté du boulangerie de ci lañ nekk Pape moo ñu présenté madame Ndiaye à ce que ñun ñu ñëw mën la liggéey ak yow. di la wax ne la ànd nañ ak suñu ay nit parce que ñun ñoo nekk ci arrêt Jakarta bi nekk fii ci buntu boutique ma ant di wax ne rafetlu nañ kàddu yi et puis promesse nga xamante ni moom nga mutuel de santé bi wala carte de santé bi wax dëgg yàlla lu ñuy rafetlu la ndax euh, ku xam ne conseil sax mën nañu wax ne euh, c'est moins risqué mais Jakarta c'est beaucoup plus risqué parce que chaque jour di nga gis ne kenn am na accrochage wala gaañu na quelque part kon kooku su amee carte de santé boobu mën a dem faju ñu wàññil ko li nga xamante ni moom mooy ay charge am loolu lu ñuy remercier la lu ñuy rafetlu la te li ñuy kontaan la di la wax ne ñu ngi sa ginnaaw euh, tey ñu ngi sa ginnaaw suba nañ jàppante ak yow ci à travers madame Ndiaye di bañ a guddal rek di wax ne wax dëgg yàlla kontaan nañ parce que ku xool temps bi ni mu chargé woon ak ni ñu ci mayee ni ñu ci joxee suñu wàll ñu rafet xol nga baax nga ñu lay ñaanal comme ni ko ñu fi jaar waxee rek yàlla la yàlla taxaw garanti la parce que jaxaaw bëgg nañu mel ni yow ñoo xamante ni c'est des dignes représentants ñoo xamante c'est des bonnes volontés ñoo xamante ñu ngi dimbalee zone nord bi wax dëgg yàlla ñu lay jox suñu kàddu di la jox suñu wax ne foofu la ñu yemale kàddu yi jërë ngeen jëf